waxtaan ak artiste bi kenn ku nekk rek dañuy ñëw waxtaan ak artiste bi bëgg a la musique sénégalaise Baba Amina Ngouda Amina moom mi nga xam ne le centre du peuple le soir du peuple ah, barki dem mooy jaay la dem 2S wax Sénégal yëpp di ko bàyyi nopp waaye mu wax loo ne mhm. ku ah, mhm. a dafa bokk ak xale yi ne leen ñëw leen ñu ndax xale yi waaliye li ngeen jëkk a wax ñu dem ba naan paaw waaliye maire waaliye te Gambie ak Ramadan histoire bu yàgg la te sénégalais yu bëri dañ koy bañ a umpale yenn saa di ko bañ a xam waali tey nag mu nar a dugg biir Gambia ah waa Babaconte Ibo Town biir Kaama ku lim da ngay juum. lu mu euh, la ci ci ci bi ndax ku mhm. wax Gambie wax Sénégal euh, te fierté boobu noonu Wally mu ngi koy prôné tax dañuy wax sax suuf rek bi porte de voix la te moom jox li nga xam ne moo nekk nit ñi. waaw bu ñu dañ koy bàyyi xel donc artiste baa ngi noonu ndeysaan moom il est modeste ndeysaan. ndeysaan ah, mu ngi noonu day. li ma gën a li ma gën a li ma gën a dafa dalal. ngeen ko waxoon démb rek lan la ñu dafa woote rek ne Wally bu nekkee ci conseil day reetaan rek ma ne ko naturellement noonu la kooku Baye Fall la le centre bi kooku la Sénégal bëgg kooku la. moom moo moo ay mooy séeri soxna ay waaye yéegalal yéegalal. Aris góor mën nga yéegalal. fotow leen fotow leen bàyyi leen fotow. fotow leen mu ngi noon di fotow ñi nga xam ne saa yi ci ñoo nekk ci bàq bi fan si yaay noonu fan si Gambie ñu fotow boo fotow may keneen fotow demal ne fotow demal fotow. waa Gambie yéen fa defal leen benn vidéo. waaw. waaw mu ngi noonu andi mbaara mbokku Gambien ah. ñu ngi soo ñu ngi Gambia nii ci féeri bi lépp rek di waajal bës bi. ah ñu war fee def ñetti fan ànd ki nga xam ne mooy Wally Ballago Seck soo Gambia ñëpp ñu waajal li nga xam ne mooy bés ah. yëpp fépp lañu am Wally parce que dañuy liggéey lii la il faut ñu jox Sénégalais yi continuer ah, voilà mu ngi noonu donc gars ah, comme ni ngeen ko waxee rek. Euh, artiste baa ngi nii. Ah, saa su nekk ah, day yombalal gars yi seen job su ko defee ñu. ay ah, jox ay fansam li nga xam ne moom lañ ko doon xaaree donc mu ngi nii jàkkaarloo mais mais xam nga ne dëkkam la ñëw bu mil lu mu naa ko samay ñetti dat wax wax léegi nee naa. Mm-hmm. Euh, Gambi ak Ramdan dañoo yàgg du léegi. dëgg la di Papa Thion la ndeysaan Papa Thion Papa Thion wëy na sax ndeysaan bi muy wëy Yaya Jammeh Diouf mm-hmm. Jammeh mm-hmm. Baraka moom aussi mu ñëw sax suuf rek ne artiste bi porte de voix la te moom mooy jox li nga xam ne moo nekk nit ñi bu ñu ko dégloo rek dañ koy bàyyi xel donc artiste baa ngi noonu ndeysaan moom il est modeste ndeysaan waaw ah, mu ngi noonu day li ma gën a li ma gën a dafa yëm si yëm si yow fu ñu fekk rek yaa ngi ree quoi jàmm am na mère bu ko démb rek kaay kaay jàmm dafa baax dafa woote ne waa li bu nekkee ci ko seen reetaan rek ma ne ko naturellement noonu la kooku bàyyi baal la le centre bi kooku la Sénégal bëgg kooku at moo nekk nii j'en suis sûr et certain man dootuma la laajati loo nar parce que jarul ko ah, te kenn du baari sa yoon wax nga wax nga ko ci soobi wax na ko soldat de wax na ko soldat wax na ko soldat du ma soosi arigo kenn ma soosi arigo kenn wallaahi te ne nga ma gars yi xam nañ ma du ma soosi ñebe kenn voilà loolu leer na mais mais naa la dénk nag benn affaire déelo ko sa fan si yëpp ne li nga géy Louga dafa mel ni da ngaa namoon parce que commentaire yëpp Dakar la Dakar moom nañu wax naa ma Paco mais Wally lu lan la ma ne leen yomb na barke Sëriñ Bamba moom moo moo ay mooy séeri soxna ay dara barke Sëriñ Tuubaa incha allah fii ci Gambia trois dates yi incha allah soobu graw ak Wally Ballago Seck tey nag muy le tey la vingt cinq ñu war a tëggal li nga xam ne xale yi la ndeysaan suma sama waaye noonu suma copain mu ngi noonu ndeysaan foo seen Wally Ballago Seck seen ginnaaw jaar naa baax a baax tey nag moo a tëggal li nga xam ne mooy xale yi parce que moom fonk xale moo tax mu ne tey soo bi tey xale yi laa koy may 19 heures incha allah xale yi laay may soo bi tey xale yi nga xam ne ñooy dañuy bëggee waal yi tey may muy le 25 tey fii ci Gambia yaakaar naa du yomb ñu nag suba le 26 ah kañ la ñu def benn soo bu mag benn dîner de gala ah le 27 nag ah ñu def li nga xam ne mooy lan ah bu mag bi fële ca stade kon nag yaakaar naa Wally Ballago Seck muy noonu gaare bientôt rek incha allah lu ngeen soxla rek ak def produit ko am temps réel incha allah jërë ngeen jëf. orange bu kii. kamoon jaay piis bi. waaw piis mi ngi si mi ngi si biti. su ma la jaay ñaar rek. booy pago. bu am bu toj demal. ah ñi ñëpp ay journaliste mu ngi noonu de. baal ma Paco. mais Ousmane ngi noonu. ndeysaan. nice naka mu bégee mais Paco aaru la de mais frère oh nice. mon frère mu ngi noonu ndeysaan Paco ngi noonu sama xarit Paco ak Ousmane Thiam ndeysaan foo leen seen rek di seen waale yaakaar na waale ngi noonu gaare ñu ngi noonu doon jënd ay puces pour jokkoo yi nekk Gambia mu ngi noonu kon xam naa rek incha allah bientôt rek féeri bi day ñëw ñu ànd ak waali euh, dugg ak. Euh, lépp lu ngeen bëgg a seetaan rek tey seetaan euh, leen ko ci DS Prod ak incha allah fii ci Gambia trois dates yi incha allah bu garaaw ak Wally Ballago Seck tey nag muy le euh, tey la 25 ñu war a tëggal li nga xam ne xale yi la ndeysaan sama sama waay ak noonu suma copain mu ngi noonu ndeysaan foo seen Wally Ballago Seck seen ci ginnaaw jaar baax a baax jaajëf tey nag mu war a tëggal li nga xam ne mooy xale yi parce que moom fonk xale moo tax mu ne tey soo bi tey xale yi laa koy may 19 heures incha allah xale laay may soo bi tey xale yi nga xam ne ñooy dañuy bëggee waal tey ñoom laa koy may muy le 25 tey fii ci Gambia a ngi noonu ndeysaan nice naka mu bëggee mais Paco aru la de mais frère oh. nice. mon <laughs> mu ngi noonu ndeysaan Paco ngi noonu sama xarit Paco ak Ousmane Thiam ndeysaan foo leen seen rek di seen waale yaakaar naa waale ngi noonu gaare ñu ngi noonu doon jënd ay puces pour jokkoo ak nekk Gambia mu ngi noonu kon xam naa rek incha allah bientôt rek féey bi day ñëw ñu ànd ak waali euh, dugg ak euh, lépp lu ngeen bëgg a rek tey euh, seetaan leen ko ci Des Prod ak incha allah fii ci Gambia trois dates yi incha allah soo bu garaaw ak waali balaago nag muy tey la vingt cinq ñu war a tëggal li nga xam ne xale yi la ndeysaan sama sama waay noonu sama copain mu ngi noonu ndeysaan foo seen wàlli balaa ko def kër gi ginnaaw jaar naa bu baax a baax jaajëf tey nag moo li nga xam ne mooy xale yi parce que moom fonk xale moo tax mu ne tey soo bi tey xale yi laa koy may 19 heures incha allah xale yi laay may soo bi tey xale yi nga xam ne ñooy dañuy bëggee waal yi tey ñoom laa koy may muy le 25 tey fii ci Gambia yaakaar naa du yomb ñu dem nag suba le 26 ah la ñu def benn soo bu mag benn dîner de gala ah le 27 nag ah ñu def li nga xam ne mooy lan a ah, soobu mag bi fële ca stade ba kon nag yaakaar naa Wally Ballago Seck muy noonu gaare bientôt rek incha allah lu ngeen soxla rek ak def produit ko am en temps réel incha allah jërë ngeen jëf.